xam tàmbalee ci état bi mhm. ndax na conteneur 40 bi bi bi ñu indi coûté nañu lu mu gàtt gàtt 10 millions mhm. te wax dëgg yàlla loolu wërtoon a am mhm. coûté nañu lu mu gàtt gàtt 10 millions ndax ñañu ko may école ba wala centre de santé ba ñoom dañuy wax ne matériel kat mu ngi nii ñëwal jël si waaye du ñoom ñoo la koy démonter chargé la ko indil la ko fi nga bëgg a chargé sa conteneur mi ngi mel ni école bi euh, Dakar la nekk dem naa waxtaan ak juboo ñu ne ma matériel kat mu ngi fi kaay jël si ko mhm. su ma koy dem jëli damay fay transport mhm. su fekkee lu ñuy démonté loolu mel na ay bureau table yeeg yooyu damay fay ñi koy démonté fay fay ñu koy chargé mhm. kon li chargé conteneur bi ak li dajale matériel bi ak li ko démonté ak yépp foofa rek ba mu fa daataan jóge di ko jëlee ca école ba wala centre de santé ba ba indi ko fi ma koy chargé ak ba chargé conteneur bi dikki na ma 4900 euros 4900 euros soo ko xoolee daanaka deux millions six cent wala deux millions sept cent fay naa ko ci nga xam ne moo koy jële fañ ma ko maye chargé ko ci conteneur bi boo ko chargé conteneur bi bateau moo koy indi bateau bi ko indi ba port dakaar fay naa ko trois millions deux cent quarante sept mille trois millions deux cent quarante sept mille te dama cee am problème ndax même bu fekkee prévoir naa ci sama budget trois millions deux cent quarante sept mille pour fay transitaire bi ba ma demee bay fay trésor dañ ne ma il faut ma def appel d'offre léegi nag bato bi moom bu ma ko jëlee est-ce que dina ma may temps bu may def appel d'offre mm-hmm. te bala maa def appel d'offre il faut ñu charger ba ma xam ñaata laay fay mm-hmm. ndax kooku dina ma may ma def appel d'offre parce que soog di ko fay mm-hmm. bala ñoo dugal sa conteneur da ngay fay conteneur bi bala koo bato bee jël da ngay ngay fay transitaire bi ba pare ñu soo koy jël léegi nag man xamaguma lu ñu chargé parce que conteneur ñoom ñoo may indil conteneur bi ma war leen fay bala ñoo indi conteneur bi xamaguma lu conteneur bi di chargé ñu ne man naa def appel d'offre te su may def appel d'offre damay wax ne man kat jox données yu précis kon xam nga loolu mun mënta nekk su ma defee su ma su ma fayee ba pare di wëlbati ko defaat appel d'offre maa ngay jàdd yoon parce que tamit damay régulariser kon foofu war nañoo xool nañ ko nuñ ko mën a corriger ba man maa permettre man ma fay bu fekkee sama budget jar na ko ma mën a fay ci sama budget waaye man maa lijjanti maa lijjanti sama xaalis man personnellement fay soo ko xool nag may def ak commune bi ba mën a jot ci loolu ndax mooy tax ëllëg ma mën a demaat wuti waat fay naa chargement deux millions six cent wala deux millions sept cent cinquante fay naa fret maritime euh, trois millions deux cent quarante sept mu ñëw ba port ñu war maa fayu ko droit de douane war maa fayu ko ay frais portuaire war maa fayu ko transport bu ko jëlee Dakar ba indi ko ñaafeen mu doon xaalis bu bari yoon ne ma man ngaa demander exonération état bi dañuy demande exonération bu dee matériel boo xam ne ci école yi la jëm damay demander ministère de l'éducation moom laay bind demande exonération wax ko matériel bi lii ak lii ak lii dañ ma ko may ñaaxeel la jëm si boole ca këyit dañ may laaj yépp attestation de don baag acceptation baag ak yu bari bind ko ministère de l'éducation nationale ministère de l'éducation nationale bind présidence wala moo xam ministère de finances ministère des finances tontu leen ñoom ñu indi wala ñu tontu leen ñu war a bindaat douane pour am exonération bi ambulance bi nga xam ne association ressortissants yu nekk ñaaxeen euh, jox nañ ko ñaaxeen benn bopp dañu war koo indi le 21 février 2023 laa bindoon demande exonération bi ba tey jii amaguñu ko te sa bagage bu ñëwee ci port bi 10 jours lañ la may pour nga génne ko soo ko génnewul 10 jours yi jour bu ca toppaat dinga fay lu mat 75 mille wala 80 mille jëm kaw par jour suñu conteneur ñëw na nee nañ dañuy def demande exonération ñu ne bu ñu ko defee kat mën nañoo jël deux mois te duñu jot exonération bi 2 mois bu ko conteneur bi nekkee ci port bi lañ may fayi ko Euh, frais de magasinage mooy ëpp la ma naroon a fay droit de douane ma ne ah comme man sama conteneur ñëw na ci port ba noppi te mënuma koo ñàkk ba ñu génne naa fay conteneur quarante bi bii ñëw fay nañ ci 4 million te 4 millions yi sax xëy na dañ ñoo wàññee ba mu kii waaye bu ñu doon fay normal normal jaar ko ci yoon normal normalement war nañoo mën a fay 6 millions yu manqué tuuti 4 million fay nañ ko ci moo tax bi ñu demee en ma qualité de haut conseiller au conseil ñu doon liggéey ci euh, suñu dernière session bi troisième session bi ñu ngi doon liggéey ci lu jëm ci col lan moo war a doon taxawaayu collectivité territoriale yi ci financement de la santé ñun indi nañ suñuy lali hôpital lal yu baax indi nañ suñuy euh, déambulatoire ah indi nañ suñuy oscillatoire indi nañ suñu suñu euh, chaise roulante mën nañoo am ay békki mën nañu am yeneen suñu poste santé yi da koy soxla ñee dañ ñoo may waaw ñu may ma ma dem bitim réew ñu may ma ma ñëw ba ci bitim ba ci biir réew mi ñu gàllankoor ma loolu nag ci laa proposé ne su fekkee ñi war a jël décision ñi ngi may dégg man nañ koo corriger ci ñaar xam nañ ne kat man su ma introduire sama demande exonération au lieu que ñuy muy def un mois deux mois wala yu kenn xamul te port bi dix jours lañ ma ci may nañ ma waxal ne nañ teg ci loi bi wax ne kat su ma introduire sama demande conteneur bi ñëw ba dix jours yi jàll te tontuwuñu ma. ñu wax ne kon jàpp nañ ne am naa exonération ba jox nañ ma ko tacitement waaw automatique automatique parce que loi yu mel noonu am na dañuy wax ne boo defee lii ba boo ci tontoo bi sàngam dañuy jàpp ne nee nga waaw kon man bu ma introduire sama demande te port bi transitaire bi ba pare ñu soo koy jël léegi nag man xamaguma lu ñu chargé parce que conteneur ñoom ñoo may indil conteneur bi ma war leen fay bala ñoo indi conteneur bi xamaguma lu conteneur bi di chargé ñu ne man naa def appel d'offre te su may def appel d'offre damay wax ne man kat euh, jox données yu précis kon xam nga loolu mënta nekk su ma defee su ma su ma fayee ba pare di wëlbati ko defaat appel d'offre maa ngay jàdd yoon parce que daa mel damay régulariser kon foofu war nañoo xool nañ ko nuñ ko mën a corriger ba man maa permettre man ma fay bu fekkee sama budget jar na ko ma mën a fay ci sama budget waaye man maa lijjanti maa lijjanti sama xaalis man personnellement fay soo ko nag nu may def ak commune bi ba mën a jot loolu ndax mooy tax ëllëg ma mën a demaat wuti waat leneen fay naa chargement deux millions six cent wala deux millions sept cent fay naa fret maritime euh, trois millions deux cent quarante sept mu ñëw ba port ñu war maa fayu ko droit de douane war maa fayu ko ay frais portuaires war maa fayu ko transport bu ko jëlee Dakar ba indi ko ñaafeel mu doon xaalis bu bari yoon ne ma mën ngaa demander exonération état bi dañuy demander exonération bu dee matériel boo xam ne ci école yi la jëm damay demander ministère de l'éducation moom laay bind demande exonération wax ko matériel bi lii ak lii ak lii dañ ma ko may ñaaxeel la jëm si boole ca këyit dañ may laaj yépp attestation de don baag acceptation baag ak yu bari bind ko ministère de l'éducation nationale ministère de l'éducation nationale bind présidence wala moo xam ministère des finance ministère de finances tontu leen ñoom ñu indi wala ñu tontu leen ñu war a bindaat douane pour am exonération bi ambulance bi nga xam ne association ressortissants yu nekk ñaaxeen euh, jox nañ ko ñaaxeen benn bopp dañu war koo indi le 21 février 2023 laa bindoon demande exonération bi ba tey jii amaguñu ko te sa bagage bu ñëwee ci port bi 10 jours lañ la may pour nga génne ko soo ko génnewul 10 jours yi jour bu ca toppaat di nga fay lu mat 75000 wala 80000 jëm kaw par jour suñu conteneur ñëw na nee nañ dañuy def demande exonération ñu ne bu ñu ko defee kat mën nañoo jël deux mois te duñu jot exonération bi 2 mois bu ko conteneur bi nekkee ci port bi lañ may fayi ko euh, frais de magasinage mooy ëpp la ma naroon a fay droit de douane ma ne ah comme man sama conteneur ñëw na ci port ba noppi te mënuma koo ñàkk ba ñu génne naa fay conteneur 40 bi bii ñëw fay nañ ci 4 million te 4 millions yi sax xëy na dañ ñoo wàññeel ba mu kii waaye bu ñu doon fay normal normal jaar ko ci yoon normal normalement war nañoo mën a fay 6 millions yu manqué tuuti 4 millions fay nañ ko ci moo tax bi ñu demee en ma qualité de haut conseiller haut conseiller ñu doon liggéey ci Euh, suñu dernière session bi troisième session bi ñu ngi doon liggéey ci lu jëm ci colle lan moo war a doon taxawaayu collectivité territoriale yi ci financement de la santé ñun indi nañ suñuy lali hôpital lal yu baax indi nañ suñuy euh, déambulatoire ah indi nañ suñuy oscillatoire indi nañ suñu suñu euh, chaise roulante mën nañoo am ay békki mën nañu am yeneen suñu poste santé yi da koy soxla ñee dañ ñoo may waaw ñu may ma ma dem bitim réew ñu may ma ma ñëw ba ci bitim ba ci réew mi ñu gàllankoor ma loolu nag ci laa proposé ne su fekkee ñi war a jël décision ñi ngi may dégg man nañ koo corriger ci ñaar xam nañ ne kat man su ma introduire sama demande exonération au lieu que ñuy muy def un mois deux mois wala yu kenn xamul te port bi dix jours lañ ma ci may nañ ma waxal ne nañ teg ci loi bi wax ne kat su ma introduire sama demande conteneur bi ñëw ba dix jours yi jàll te tontuwuñu ma ñu wax ne kon jàpp nañ ne am naa exonération ba. jox nañ ma ko tacitement mm-hmm. waaw automatique automatique mm-hmm. parce que loi yu mel noonu am na mm-hmm. dañuy wax ne boo defee lii kat ba boo ci tontoo do bi sàngam dañuy jàpp ne nee nga waaw kon man bu ma introduire sama demande te port bi 10 jours lañ ma may nañ ko kale ci délai délai bi nga xam ne moom la ma euh, du bàyyi euh, port woon may wala waa port bi loolu lañ ma may pour ma génne sama conteneur bu boobaa nag su ma demee wan leen luy justifier ne déposé woon naa sama demande euh, exonération délai ba àgg na ci loolu ñu jàpp ne am naa exonération nga xam ne nag su boobaa ñoom ci loolu la sukkandiku wala ba di nag topp état bi bu exonération bi génnee ñu accordel ma ko baax na su génnee accordé ma ko état fay leen te état am na fu mu leen mën a fayee ndax dañuy wax li ñuy wax budget consolidé d'investissement BCI ministère bu nekk da ci am montant bu ñu lay kiyal pour nga ciy jàppale collectivités locales yi pour ay seen investissement wala yenn dépenses yoo xam ne manqué nañ jot am nañ dara manqué nañ dara nga complété ci loolu ci BCI ne kat kon loolu ci BCI fonctionnement wala ci nuñ ko mën a kiyee waaye ñu ne kon kat su boobaa buñ ca àggee ci loolu kon li commune Niakhène waroon a fay douane état moo koy jël en charge su fekkee ministère de l' nationale la waa douane nañ yónnee seen facture ministère de l' su fekkee ministre de la santé la waa douane nañ yónnee seen facture ministre de la de santé dana tax ñun ëllëg ñu gën a sawar dem di wuti ñoo xam ne danañu mën a dimbali parce que yëpp ndimbal la parce que su fekkee conteneur dëgg la conteneur 40 pieds la valeur bi war naa mën ay ay ay ay donc su ma ci dépensé 10 millions dana ko dana ko war a jar comme li ma wax léegi ci ordinateurs yi rek ordinateurs yi soo ko doon xool 70 ordinateur benn bu nekk boo ko doon jënde boo ko doon jënde 100 000 francs yaakaar naa day dana dana bari dana bari dana euh, set millions yaakaar naa dana ko dana dana ko jege lalu hôpital yi boo ko doon jënd ñaata nga ko doon jënd machine à coudre yi ma wax léegi électrique bu ma ko doon jënd xanaa benn machine donc bu ma ko doon jënd 2 millions ma am ci 4 machine loolu 8 millions lay doon jëlee naa chaise yi boo calculé benn chaise